bismillah ay jëmëri wa ma tawfiq illa billah wajal kalaami rashidan mursida wa fikrati nawil ahad bi arsida bismillah ñu ngi ziar mbokk taalibe suñu mbokk internet yi di ñuy ànd ak waa Capa TV di ñëw tey si caravane bi ñuy amal quatrième phase bi tey ñu war a dem Kastoor Asalem ak Kolobaan euh, ñu ànd ak liggéey bi mun naa sudur ak Munaawiru Sudoor daayira Munaawiru Sudoor euh, Yara Tefes ak daayira Asxaabu Jannati ak bépp murit ak ak mbokku taalibe moo xam ne ñi ngi ñi ngi yaraax ñu ànd ak ñoom liggéey bi ñi ngi nii nag soo ko tàmbali liggéey bi ngir dox dugg si dëkk bi ñu war a jëm nii jaar Kasoor Cité des Eaux jëm Kasoor euh, war a jaar noonu dem Asalam war a dem Kolobaan ngir gën a jàllale liggéey bi liggéey bi mën a àgg fa mu war a àgg ñi ko war a yëg yëg ko waaw kon ñu ngi nii suñu point de départ nii entre nii fas yéene liggéey bi xam naa si kanam incha allah dina gën a yaatu incha allah jërë ngeen jëf ay tamit dem nañu ndigal ñu tàbbee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu taxawal ko fi Tuuba ci Yarax ñu saabu yëpp ko ci seen alal ñu jëm ci Tuuba te Sëriñ Tuuba ci Yarax am na ndigal Sëriñ Tuuba Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu taxawal ko ñu saabu ci yëpp ñu def ci seen alal jërëjëf jërëjëf منزل لا إله إلا الله الجليل الجليل الجليل لا إله إلا الله لا إله الجليل كيف الجبائر يب ñu tàmbal ci liggéey boobu teeru ñàkk ndax liggéey boobu liggéey bu islam la di liggéey alquran kon liggéey boobu du liggéeyu tarixa liggéeyu jullit yëpp la Allah rasida mursida wa fikrati nawi wa xalbi asida eh, tey nag ñoo amal karavan, mu nekk suñu quatrième euh, quatrième phase quatrième tolluwaay gi ñu ko dalee def ak léegi daanaka tey nag waroon na jaar Kastoor Asalam ak Colobane daanaka ñu ngi toll fii si Yaraax si EMG bi doon es escale léegi du jok defee dañaa bëggoon jox jori suñu maam Koon Njaay mu leeral dëgg-dëgg liggéey bi moom mi nga xam ne moom mi ngi ay cadre su liggéey projet Kër Sëñ Touba bi bisimilah sëñ Manko. alhamdulilah bisimilah inna wala gannaaw bu sant yàlla ñoo ngi julli sang-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di jaajëfal Cheikhul Khadim tey wax na ni dong la ay ndaw moom soo ko nekkee da ngay jublu si liggéeyal sëñ Touba ndax moom moo des si dund bi loolu dong moo ñu des si dund bi kon mbooloo mu toll nii doon ay xale suñ nekkee si liggéeyal sëñ Touba sant yàlla rek waaw ñoo ngi sant bu baax a baax jaajëf jërëjëf Cheikh Mankor kàddu yi am solo matala na macha allah jërëjëf jërëjëf. Annem, out. I found it. na ko ci xam-xam kon kër sëriñ moom la ñu war a taxawal ci seen julli yëpp ngir mu fekkee jàmm ñu ngi ñaan ci barke sëriñ ñu fekkee seen ay jëmir sëriñ Amen. dugal ci seen loxo pour que ñu mën a assuré ndax am na mu taxaw mu ko ci suñu ñëpp dugal ci seen loxo ay yéen ñu dem waaye yéen ñu ñu ñëw ñu ñëw doxal ñu doxal suñu jóge waaye waaye bu ñu jël bu ñu jël bu ñu jël suñu Ah, tey nag ñu woon si caravane bi quatrième édition bi moytu quatrième édition bi nekkoon fii si Massa Kassor doon yaatal ak leeral liggéey bi ngir ñu ñi ko yëgul ak mbokk taalibe yi si mën a jàpp ñu gën see mën a jàpp mbokk jullit yi mbokk taalibe Serigne Touba lañ bëgg amal fële sa Touba Yaraax di kër goo xam ni day tarbiya di tarxiya di jàngale alxuraan ak mbooleem xam-xam yëpp ñoo si woo mbokki jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi ay booy ñoo ngi leen di siyaare di leen woo ci liggéey bu màgg bu di liggéey am am solo boobee di liggéeyu diine di liggéeyu lislaam di liggéey boo xam ni bu noppee ñëpp rek nañ ci gis seen bopp jërë ngeen jëf rawatina tuut tànk yi jërë ngeen jëf yaay booy ñoo waral suñu karabaanu tey bi nag mooy kër Serigne bëgg amal fële sa Touba Yaraax di goo xam ne bu noppee alxuraan ak xam-xam lay jàngale di di di tarbiya di tarbiya baax a a baax jërë ngeen jëf mbokki jullit xasida di xasida mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax lu waral suñu karabaanu tey bi nag mooy kër Serigne Touba lañ bëgg amal fële sa Touba di kër goo xam ne bu noppee jàngale alxuraan ak xasida ak mbooleem Thank you. alamin ñi ngi delloo ziar waat ñëpp di santaat bu wér wér daanaka ñi si caravane bi booba tey gars yi di woyal di yëkkati xasida yi ak kuréel 1 bi ak membre daara yi ñu ngi ànd en masse di doxal bu baax a baax ay tamit ay tamit dañuy yëngu ci des yow Mamadou Mountakha ñu war a taxawal ci seen Touba Tourex ñu sàkk ci ñëpp ñu bañ seen addiya te seen Touba Tourex lañ war a taxawal depuis ndigal si yow Mamadou Mountakha ay ay ay ay waaye raam am ci ndigal yu koy am ci bisimilah ñu ngi santaat bu baax a baax daanaka caravane bi ñu ngi toll nii fii si Mass Asalem ànd koog waa comité pilotage kër Sëñ Tuubaa gi ci jiitalu Sëñ Mouhamadou Diouf ak euh, adjoint Sëñ Chouaïbou ñu ngi toll ni nag si Mass Asalem gars liggéey liggéey bu am solo daanaka ginnaaw ba ñu jaaree Kastoor dugu bir asalam ñu ngi toll ni nak ci marché asalam dañuy konté liggéey bi jëm Masalik jaar Koloban dal di delu Yarax inshallah allah ñu koy and and go am solo go pasteefu muriti borom Touba yi ak jaamu yalla yi ñi ci jëf-jëf gu am solo ñi ngi santat bu baaxa baaxa baax tay rafa tey rafetlu liggéey bi jërëjëf di ko joxe boole ay jooy kon lii liggéey lislaam la boo xam ne ñu yaatal ko yaakaar naa daari alquran moo ko njëkk. ci seen ñi ci joxe ñu jël seen alal dugal ko ci yoon wi loolu kat moo tax ñu xalaat si fii a Bye. est-ce que loolu mënuloo mënul mas borom lëgën. borom lëgën bi ñu ngi mas na. La ilaha illallah pequena.

ولا زمن لي في كونك الله والربا ci liggéey Serigne Touba bi ngeen tukku wér tamit jërë ngeen jëf yàlla sa borom gët ñëw ñëw yàlla sa borom gërëm jërë ngeen jëf murid yaa si biir murid yaa si biir murid yaa si biir jëf jëf jëf jëf jëf jëf jëf ay ca murid ay ca murid aja murit aja murit aja murit aja murit aja murit si liggéey borom Touba gi aja murit si liggéey borom Touba gi projet Kër Sëñ Touba والغر والقربان يا دور सर्वे वदु सविनय सम्भव kër goo xam ni bis bu noppee jàngale rek la kër Serigne Touba lañ bëgg a amal fële ca Touba Yarax maa ngi doon seen bu wër xaalis. parce que tey bii yéen ñoo سنة الزهار أنت الباري ولنا سرية تديم على ملا الصالح يا قديم ولنا سرية تديم على ملا الذل والجسر وخير سددي بخير المالك المكرم متهدي نجا بما يديم خير سددي فسسيد بالقرآن مددي نجا بما يديم خير سددي فسسيد بالقرآن مددي نجا بما يديم خير سددي هذا سيد بالقرآن